alors c'est politique ñëw tey euh, fekk si euh, docteur euh, Babacar Niang bu suma assistance kilifa gi ñu ngi lay nuyu. amaa leen delloo nuyoo artiste nuyoo seen auditeurs yi. waaw ak ah, sénégalais yi leen déglu yëpp. alors muy Dakar muy Sénégal muy à l'extérieur. d'accord dina ñëw ci Euh, probable quatrième vague ñu ngi ko yëkkati di ko wax même bu fekkee ni on a vu dernièrement que ni cas yi xaw na wàññeeku qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ak don yi nga xam ne réew yu bëri def nañ ko Sénégal te souvent yow da nga insisté aspect boobu mooy wàllu transparence ak ci aju souvent également gis nañu rush bi bi am le plus souvent nit ñi ñëw bëgg a yooyu mais d'abord Sénégal dañoo yeewoo tiis docteur euh, Fala Fala Paye waaw bi rey boppam rey doomam on, on parle de euh, euh maladie euh, euh, exactement nga yëngu ci wàllu bi nan nga apprécier actualité boobu noonu su demee ba ñuy xaar ci docteur ñu dalal ñoom ñooy suicidé wu ban regard nga am ci ak ci boobu ni ma ko xalaate mooy déjà tiis bi daal ñoom ñu ñoo ñoo bokk surtout le corps médical ñu ngi jaale ñëpp ku jàng médecine bu day noonu hmm. ba toll foofu tamit mooy waneen tamit nous on n'est l'abri ay nit lañu comme tout le monde Ah, dañuy feebar comme ñëpp di kii bon ay problème de famille nag laa dégg la hmm. bon xam naa nag euh, évolution société bi moo changé lu bari. Hmm. parce que yi vraiment bu mbokk yi taxoon warul àgg fii parce que Sénégal am na lu bari laa xam ne daan nañ ko réglé par ay mbokk ay nijaay ay bàjjen affaire u famille du àgg fii quoi bon hmm. moo tax nañu xoolaat suñu bopp xool certaines valeurs nuñ leen dugalaate ci dëkk bi bu ñu amee ay problème mën a dem ci ay ay bàjjen ay nijaay ñoo ñu jóg xool nu ñu nu ñu régler si nu ñu régler problème yu mel noonu. l'aspect lié à la santé mentale am nañu ko évoqué jàpp ni tamit dañ ko soxeel ci réew mi est-ce que vous avez le sentiment que ni aspect boobu duñ koy bàyyee xel. aspect aspect santé mentale. waaw ah, ah, maanaam la psychiatre ak yenn aju. waaye ah, yooyu nga xam ci domaine bi dañuy jàpp dañ ko xaw a desal ginnaaw. war nañ ko gën a mën a privilégié. waaw yu mel noonu oui relation de famille. Hmm. ah muy couple bi. ah léegi on fii la la la la la famille cellulaire man max sama jabar ak samay doom hmm? alors que nijaay da daan nekk ci kër gi jarbaat nekk ci kër gi bon yooyu yëpp nag la façon de vivre de citadine nous oblige à, à, à une autre façon de vivre ci façon de vivre moobu nag même en euh, de façon détendue est-ce que mën nañ leen quand même activer boo jaaxlee ba jaaxle nga dem sa nijaay nga dem sa bajen nga waxtaan parce que Sénégal quand même c'est un pays de dialogue autant pour les problèmes que pour les problèmes de famille donc euh, côté boobu la ñu war a gën a xool. dañ gën a war a xoolaat. dañ koy accentuer waat bon léegi tamit euh, intellectuel bu feebar tamit dafa naqaree que naqari naa aborder. waaw <laughs> ah, y a ça aussi loolu yëpp tamit c'est avec réserve mm-hmm. mais li ma dégg daal bon lu day noonu daal en c'est des problèmes euh, mentaux yu koy mën a andi bon jotaguma confirmation officielle. autopsie bi ak yooyu yëpp. Mhm. bon est-ce que dina leen faral di dal ak volume de travail bi ngeen di amee. ma mhm. stress bi nekk ci ñenn ñi est-ce que dina leen faral di dal. ñu ngi di dalal ñëw ak aussi hôpital waaw. loolu ñuy wax burn out. waaw burn out temps yi même ci archi bi nu mu tuddee. Euh, ci Covid bi demoon nañu ko sax ba. Euh, bien sûr di ko doon wax waaye. ñuy waxtaan ak groupe yi. bon dans tous les pays ah dans tous les pays gis nga ay photo ay médecins yu déprimé ay infirmières toog ci suuf jàpp seen bopp. kooku gis nañ ko parce que boo toogee kam ba faj mooy mooy sa mooy sa yelleef nga toog nit ñi di dee sa kanam mënul leen dara kooku tamit c'est très difficile à te li ci gën a gis tamit mooy loo am na loolu changé hmm. malgré ñu nekk ci di fajax dee dee chaque jour chaque fois chaque jour dañuy touché chaque jour man trente cinq ans ngi nii bés bu nit deewee rek day mel noonu c'est le premier te donc on peut pas s'habituer à la mort ça moom loo nekk médecin médecin da ngeen koy soxla aussi li nga wax ni saaw veut ko kon da ngeen di soxla en dehors de de de de liggéey bi ngeen di exercer ak pression bi ci àndal mm. ak li ngeen di dund que mu am tamit ñu leen di taxaw oh, psychologiquement moom tamit euh, de toute façon médecine am na ñuy commencé médecine médecine boo gisee moo def sept ans mm. am na deux ans yoo xam ne da ngay xam foo jëm ci deux ans yooyu am na ñoo xam ne dañuy ragal deret du ñu continuer am na ñoo xam ne dañuy gis ne que ngay jóg di jóg ba bëccëg di taxaw ñëpp di la wax euh, seeni seeni affaire sans sutura ñàkk sutura boobu tamit ci la parce que hmm. do ci question ñàkk sutura mais on te confie tout hmm? lu ñu waroon na denc ci sutura sax boo nekkee médecin euh, ñu summee ko sa kanam wax la lu nekk donc aussi c'est un poids boo xam ne da nga koy yaa ngi koy yaa ngi koy denc yow di ko utiliser est-ce que boo demee sa famille man nga décharger ba sa famille bañ ko yëg est-ce que da koy jaxase avec les histoires de famille loolu nag mooy problème bi ñun rek li ñu jàngaloon boo hmm. boo dindee sa blouse dootoo médecin frontière boobu nag <laughs> moo yombul. <laughs> moo yombut a ah, délimité. ah sol naa sama blouse docteur ñaala tudd solatuma sama blouse Babacar ñaala tudd léegi nag loolu loolu nag yëpp ak lu mu àndal. te yëpp dafa mat a bàyyi xel. voilà yooyu nag moom mooy difficulté bi bu ñu mënoon a arrivé à séparer vraiment côté professionnel bi ak côté familial bi. Hmm. mais nag c'est très lié. c'est très lié alors ñu wax ci aari kalaj gi. Hmm. mu ngi fi ba ah. léegi. Ah Covid. <laughs> Euh, euh, dañu xëy rek gis kaa yi di wàññeeku bi ñu jógee ci ah, ah, màggal ah, gi gàmb gi am ñu jàppoon ne waroon na mën a ba moytul mënoon na exploser mais léegi tendance baissière dañu gis am na loo ko expliquer selon yow au delà de euh, explication waaw yi joxe ñeen damay damay sargal waa corps médical xam na ils se sont battus est-ce que nag c'est un résultat qu'on a eu moi je préfère vraiment que ce soit un hmm. ñuy teel a jóg di faj nit ñi ñi di dem sensibiliser wu di dem foofu nag la ma affaire bi jaaxale hmm, parce que bu mille plus de mille personnes di dem di testé wu ñu naa deux ñoo ci positif wala zéro moo ci négatif kooku nag jaaxal na ma hmm. parce que mille personnes du ñu man a hmm. sentir dara seen yaram dem ci ay médecin dem ci ay infirmier ñu leen dem leen defi test ñu mën a juum xam nga ju loolu juumeel la nga jël mille personnes envoyé leen pour ñu tester mille personnes yi kenn bañ ko ci am xam nga loolu am na bon waxuma la dafa teye xel mais parce que man bu ma gisee xool la ba examiner la ah jël sa température jël sa tension laaj la laajaat la. Hmm. Ah, décision wu defi test. test bi dafa metti de dañuy dugal si sa bakken xuruj xuruj ko <laughs> génnewaat ko yow mii dem déjà psychologie bi ngay dem pour defi ko dafa diis. bon décision bu rëy la pour un médecin de dire quelqu'un demal defi test day fekk vraiment nga am élément éléments yu la doy ah yu diis yu la mën a wax ne kii demal. parce que boobu da ngay njort ni. xëy na war na ko boo ko defee ci dix mille personnes mille personnes yi négatif bon alhamdulilah mais quand même mille personnes quand même mënuñ di seeti dara ñoom mille yëpp ne négatif. parce que am na hmm. pourcentage buy nekk ci population soit am na ñëpp nekk zéro soit amul ñëpp doxi seen soxla mais bu mille personnes di jóg di xooliwaat seen yaram di xool lan la ndax du loolu jaar ci médecin wala infirmier kooku ne leen ah. xam nga médecin mu loolu mooy rôle filtre am. Mm. yow da ngay jóge sa kër nga defee ne da nga am cancer. nga ñëw ci moom mu examiner la. mu ut ay créma ay éléments ah, pour mën a xam ndax cancer bi ngay xalaat la wala du moom. wala da nga seetaan film rek gis ci cancer rek cancer nekk sa xel. xam nga loolu mm. ñun tamit ñu médecin daf ñuy dal tout le temps mm. ñun bu ñu daan def cours ci tuberculose <laughs> le lendemain médecin yëpp ñooy am tuberculose. ñooy daw ci professeur ne ko ah man de damay saxat damay génne deret damay kii fekk seen yéen doog leen démb cours bi ma leen defal démb rek moo leen jàpp donc gis nga déjà médecin sax bu lay dal waxtuma laa nag kenn ku seetaan film wala déglu ay information ci télévision bi hmm. bon foofu daal moo ma jaaxal mais kontaan bi moom kontaan naa ci hmm. euh, maa ngi félicité waat vraiment gouvernement bi ak même sunu ministère de tutelle hmm. ah ki ñuy defee ne dama jàppante moom mosuma jàppante moom man liggéey di wax ay di joxe samay position ah di wax li ma xalaat ah malheureusement mënul neex ñëpp mais li ma xalaat est-ce que mujjoon ngeen daje ak plainte bi ñu fi yëkkati woon ak yooyu yëpp fu mujj waruñu daje ba suñu waroon daje sax damay bañ parce que déjà lii euh, directeur wala euh, comment ça s'appelle dalal jàmm wax que dama moon ay affaire ak moom affaire yi ñoo dañ moo tax ma mere ko mais kooku mosuma koo gis à part télévision wala. Abdoulaye Diouf Sarr mosoo gis mosuma ko gis donte yéen bokk sax gox yooyu mosuma ko gis dara maa ko jiitu ci maa ngi fi moom defagul 5 ans de médecine dafa ñëw fekk si ñu ñu sargal ko yëkkati ko topp ci ginnaawam mu nekk suñu kitti tel mais ci Covid bii la ngeen mës a dégg may wax ay affaire ay affaire santé yu dem ba ci moom te li ci am yu am am yëpp dëgg gaa ngi génn. def naa Jurbel bi passé gis ngeen li fa am matériel médical de mission bu jógee à l'extérieur ñëw di dimbale ay nit di leen faj gratuitement ñu yeewu ñu fekk matériel ba dem <laughs> donc kooku moom te tàmbali naa bëri ah lan nga jàpp ni mooy waaw woy eh, ma yow li nga doon wax ndekete am na ci dëkk bi te loolu tu mën maa ko wax ah seen moroom naataango bu mokk ci bien placé xaw ma ci xaritu gouvernement yi moo ko génn ñu laaj ma la est que loolu mën na am ci dëkk bi ma lu gën a loolu mën na fi am kooku moom ñun ñëpp xam nañ ko kooku euh, dina dans cent ans bu ñu ma mën a yóbbu dinaa wax li ma waxoon. Hmm. <laughs> voilà kooku nag moom vraiment leer na ñun tamit kontaan nañ ci ñun tamit changé nañ suñu position xaw ma tey noo duggee ci clinique bi mais gis nga entrée principale ñu. waay waay entrée bi ubbeet nañ ko. Hmm. entrée bi nga xam ne ñoon filtré filtré bu metti hmm. arrêté nañ ko. bon yaakaar ne vraiment que dina dégg mais nag li tiital. mooy sunu naataangoo français yi. waay sunuy on parle de entre guillemets ni may waxee. bu ñu jaaxlee tey ba am 500 cas par jour. Hmm. Euh, damay tiit. Hmm. parce que sunu relation ni mu duggante ñetti avion ñeenti avion par jour di ñëw di gis Sénégal di dugg Sénégal di dem France bu ñu bu ñu amee 500 5000 cas. 5000 cas par jour cas par jour. <laughs> war na mën a ragal maanaam loo jàpp foofu mooy ni demalante bi war nañ ko mën a xoolaat. sama xel dalul ci tëjaat sama xel dalul. Hmm. ko wax amul frontière. virus bi amul frontière. kon da ngay jox dëgg le président Macky Sall muy wax pass sanitaire nañ ko étudier pour jëmmal ko ci yenn. presse sanitaire euh, euh, fu euh, est que tax na gisoo France am nañ ko dañ demoon ba baissé def pass sanitaire pass sanitaire lu mu leen andil. cas yi explosé moo indi solution. cas yi andil vaccin bi lu mu leen ci waxoon vaccin bi jotagul pareegul waxoon nañu benn vaccin ñaari vaccin. léegi ñu ngi troisième vaccin. vaccin bu ñu lay wax ne moo lay aar lii ñu ne du la aar mais dina la dimbale. ba ba doo dee entre <laughs> ñu wax dose fi mu ne nii dose yi dem na ba quatrième kooku moom c'est scientifique il y a une période de décès thérapeutique bu ñuy def ay recherche recherche yooyu. pour kon yow jusqu'ici ñàkku <laughs> <laughs> docteur bul bul yëngal bul yëngal dëgg bi. Eh, voilà la tontu <laughs> du ma la tontu moom du ma la tontu ah, ah, période essai thérapeutique la ñu nekk. Mm. même si c' est mondial. Mm. même si c' est dans l' intérêt euh, mondial de toute la population. Mm. ah nañu reconnaître que c' est un essai thérapeutique. oui essai thérapeutique nag. ku sa xel may mu doy la. nga dem. mais ki koy defar bu ne la man garanti wu ma la. <laughs> ay euh, assurance jóg ne ku ko def bu la ci dara fekkee euh, sa assurance du daw bon. en tout cas coow baa ngi fii te Sénégal itam. sans notice euh, seize de personnes àggaguñu cinq million de vaccinés kooku tamit jarul may wax. te am na vaccin yoo xam te ne sax dafa mujj dafa mujj yàqu. <laughs> mooy li nga doon wax looy looy essayé. Euh, risque la risque la pour tout le monde risque la pour qui recherche risque la pour ñi ñi nga xam ne dañ leen koy defal. Hmm. bon mais kawu euh, France baa nga noonu boobu am passe. doo am pass sanitaire kon yow li ñu jàpp mooy parce que président Macky Sall li wax moom caaxaanu ci. Ah. dafa ne carrément ministre l'intérieur nañu étudier possibilité ah, en rapport avec euh, ministère de la santé ñu xool ci yenn espace public yi ñu fa mën a jëmmale wooy na xool na nga xam ne dañu liyee nii hmm. Hmm? ay Sénégal di ñëw Dakar di génn voilà ñoom déjà ñoom ñoo monté la te ñun monté wuñu ñun sans passe ñu ngi nii monté wuñu te ñu xam ne aussi africains yi am na lu lu nekk ci ñoom euh, immunité boo xam ne ñi lay amuñ ko amuñ ko boo nekkee xale déjà si avec la mortalité infantile il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle bu cinq personnes junde juddoo c'est rare que cinq euh, trois yi dund ñooñu nag day fekk seen yaram wara a antal lu bari pour ñu mën a dund un loolu mooy sélection naturelle yàgg na Sénégal hmm. yàgg na en Afrique voilà donc kooku tamit euh, am na loo xam ne immunité bu nekk si ñun bu naturel boo xam ne dimbali nañ ci feebar bi hmm. kooku tamit mooy euh, mooy contrecarré li euh, le président de l'OMS waxoon que bës bu feebar duggee en duggee Afrique waaw dañuy dañuy hécatombe hmm. bon heureusement wu ñu ñu ngi fi hmm. léegi nag vraiment résilience boobu noonu ñu am nga jàpp ni en dehors de efforts yu gouvernement yi def en Afrique ngir fexe xeex bi reposer Euh, résilience boobu on la doit ak qui réellement. résistance wala résilience. ah loolu la ñuy wax ne l'Afrique est finalement résiliente. par rapport ak li ñu doon wax résistante au Covid. d'accord résilience moom beneen histoire de développement je <laughs> président moo gën a xam. na waaw ñooñu résilience <laughs> ba léegi sax je me pose la question que lu mu signifié d'accord mais résistance des Africains. Hmm. kooku la ñuy wax. kooku nag am na benn photo bu génn ci benn journal bu doy waar. Hmm. ñuy wane ay xale yu ndaw. ñuy faju ñuy sangu ci benn canal <laughs> lu mel nu canalu hmm. Fass bi ñu teggi ñu teggi kubéer nekk ci biir di sangu <laughs> waa ji def article voilà pourquoi les Africains sont résistants donc on a eu presque une vaccination naturelle parce que dañu yàgg dugg ci micro bi. micro bi yàgg sunu mburu rot si suuf ñu for ko fomp. Eh. lekk yàlla mooy reye <laughs> kooku moom defe naa ñu bëri sunu génération. waaw jaar nañ ci fa la ñuy jaar xaw ma nag hmm, yéen. bien sûr fu ngeen jaar bien sûr jaar nañ ci <laughs> jaar nañ ci. Ah, ñetti nit di naan ci benn potu ndaa <laughs> dara du leen jot bon bu nga dem feneen ñu ne la potu ndaa bu kenn laal sax da nga koy sànni. Hmm? kon bu la déggee mooy ni phénomène yooyu ak suñu culture ak loolu nga xam ne dafa bokk ci ñun war nañ ko mën a bàyyi xel bu ñuy wax médecine. ak xeetu euh, vaccin euh, euh, virus yi nga xam te ne feeñ na ci jamono. Ah. war nañu bàyyi xel ne ni muy faagaagal fële mën na bañ nekk parce que am na lu ko jiitu. Ah, kan moo ci ëpp maanaam kan moo war a mën a jot information bàyyi ko xel. te bañ rek comme ni nga koy waxee sànq j'ai comme l'impression que da nga wax président Macky Sall lépp lu France def rek daanaka dañ koy gisaat fii. na ah, bàyyi xel ni limite limite war na ci mën a am. tey li may wax ci France def ak bokk yooyu du question def bañ a def. Hmm. question réalité la et question échange. niveau de échange bi ñu am ak France tey ah bu France tolloo 500K 5000K sax <laughs> man tellement. oui 5000K euh, bi dama ci jël nangu ma ko prononcé sax. ko am par jour par jour la wax de. 500 <laughs> <laughs> par jour. Hmm. tey avion yi di dem nii diggante euh, xaw ma Dakar ak Paris euh, kooku mënuñ ci mucc mënuñ ci mucc. kon yow tendance baissière bi su ma déggee mooy ni kon. Euh, il y a, le, il y avant la tempête. <laughs> Vous connaissez le calme avant la tempête Oui. Hein balaa géej gi di yëngu day tey d'abord. Mm. jékki-jékki mu yëngu. loolu déjà mooy rey mool yu bari. mooy dem géej gi géej gi calme ma dem. bon kon c'est inévitable quatrième ah, vague. Euh, en tout cas lu am ci lu euh, am dans d'autres xanaa ñu am ñu bu ñuy tere bu ñuy tere virus bi muy dugg <laughs> visa visa antivirus la ñu war a wër moom la ñu war a gën a wër que pass. <laughs> comme pass sanitaire oui. visa antivirus. voilà visa antivirus mais mm. moom. defe naa bu ko Europe defee te réussir réussir leen. te variante yi la tamit parce que boo vacciné wu bii. Mm. te variante bi c' est pas sûr que mu couvrir. ah vous avez vu on est en nu muy monté crescendo. oui. Hmm? leen benn vacciné leen ñaar vacciné leen ñett. pour ñuy mujj ne dix fois. <laughs> parce que day muté. voilà ah boo feebaree tamit ñu ne la booy kii mais peut-être dina la dimbali ba doog doo doo dem réanimation bon xam yëpp tamit euh, vraiment mu ngi noonu. cest à bu ñu la déggee ba léegi on n'arrive pas à comprendre. Mm-hmm. Covid bi lan la. maîtriser guñ ko donte yàgg mu ngi bëgg a yàgg. Mm-hmm. ak liñ ci expérimentation yi ñu ci def yëpp. ba léegi. Mm-hmm. amul de manière scientifique. lu ñu mën a avancer pour ne kat finalement jàpp nañ ko lii la. non am na lenn lu scientifique loo xam ne kenn mënu koo dindi. virus bi d' abord c' est un être vivant. Hmm? Mm. raser un être vivant c' est difficile de. Mm. on a a ceux qui ont fait les génocides xam nga génocide. oui jël ay di leen xàmmee mën nañ leen groupé ne da nga leen di rey kooku sax mënoo ko waxtuma laa xam ne bët du ko gis <laughs> loo xam ne bët du ko gis boo décidé da nga koy raser. dina metti de ah. Mm-hmm. Mm-hmm. comprendre nga. da ko parce que yàlla moo ko teg fii muy dund. war a lekk nit ci nit ñi war a naan ci nit ñi. Hmm? léegi nag am na symbiose buy am. Hmm. entre parasitage. am na parasitage yoo xam ne da ngay gis benn garab boo xam ne beneen garab daf ci sax ñu ànd dundandoo. mais am na yoo xam ne nag da ngay parasiter en même temps nga bëgg a rey kii lay dimbale. Hmm. bon foofu la ñu toll. jël luy dund virus bactéries dindi ko ci àddina amul. benn rek la ñu wax ñu ne polio vaccination mën na la dimbale ba amatul ci dëkk bi mais ça veut pas dire que polio bi dee na polio bi muy dund ba léegi virus polio bi muy dund ba léegi mais bi ñu tombé ci vaccin bu efficace mënatu daaneel donc fii tamit euh, jéego yu bari la ñu war a def. Hmm. pour arriver si li ñu am ci polio bi. polio bi dañ ne la léegi virusu polio vaccin polio doo ko am amul da ngay def ñaari yoon amul da ngay def ñetti yoon dose bu am na dose boo xam ne boo ko amee. ba yàlla def la li ngay dem euh, dootoo ko jàpp. Hmm? Hmm. bon sa veut dire boobu on a trouvé le vrai vaccin efficace bi nag nee naa la dañuy gëstu en deux ans bu leen fee fàtte tamit feebar yi en deux ans. 2019 ouais. Hmm? en deux ans euh, mosuñu de mosuñu mosuñu mën a sauver. Euh, contre la planète quoi. bii grave muy fièvre espagnole. dafa daw ba ba Sibérie Espagne la amul fu mu demul. Hmm, je crois qu'il a fallu quatre ou presque dix ans xaw ma quatre à cinq ans balaa ñu koy génne dëkk bi. Hmm. donc euh, exemple yaa ngi noonu. comme donc faut revoir l'histoire de la médecine l'histoire des virus xam ne virus buy xës bi dund mënuñ ko disparaître loo dañuy trouver peut-être un moyen bu koy tere mu développer mais mënoo mënoo rey euh, lu yàlla sàkk muy dund nga ne da koy dindi ci addina àddina amul. kon yow bu ñu la déggee mooy nañu continuer niñ daan dundee. waaw oh. bàyyi restriction yee comme ñi nga wax ni président Macky Sall ay pass sanitaire ak yooyu. Oh. te fexe nu ñu comprendre virus di ko xeex en même temps continuer suñuy activité. non restriction bi waxuma ne dañu dindi restriction yi les mesures barrières dañ koy continuer. man changé naa tey porte am na porte boo xam ne moo gën a yaatu moom la ñuy duggee ah filtrage bi wàññi nañ ko mais kuy dugg ngay sol sa masque buñ la mënee désinfecter sa loxo ñu désinfecter sa loxo. Hmm? voilà kooku déjà ñu ngi ci. ah te waar naa la période bu calme bi man foofu laa gën a tiite. Hmm. fii la ñu war a génne sunuy euh, matériel bi yëpp. Ah maa ngi wax ministère de la santé comme d'habitude ne leen génne leen matériel bi ngeen commencé ko joxe prévention c'est se préparer la guerre ça se prépare avec des armes mais du ñu summi nañu taxaw leen foofu bu ñëwee ngeen ngeen ooñu ah dem naa bi baa sunu réunion avec le ministre de la santé rencontre foofu des éléments ñi yor matériel nee na ma ah non affaire wàññeeku na léegi euh, dutuñ leen jox dara. oxygène bi sax yëngu na dañ ko coupé. oui oxygène dañ ko coupé au privé. am naa fi ñaari malade yu feebaroon temps yi ñu ne ma ñun bokkatuñu ci oxygène bi oxygène bi léegi public privé bi waratu ko am. parce que xam nga loolu tamit moo andi woon coow bi un euh, pandémie bi waa public ñoo ko war a yor privé bi exclu mais bi ñu demee ba affaire yi tàng hmm? <laughs> ah, privé bi de xaaru leen sax dañuy jóg dem commencé liggéey suñu bopp commencé di faj suñuy mbokk di faj ñi ñu wóolu ah fii tamit defe naa bu ñu yoree matériel surtout que euh, Turquie yi. jox nañ fi douze tonnes de matériel laaj naa bind naa wax naa dégguma ci dara hmm? nañ ñu dimbale matériel boobu bu fekkee mu ngi fii jarul dara ministère bi du ko wàññi dara mu jox ko ñi ñi ñit ñi fargu fargu fagaru fagaru balaa quatrième vague dañu fekk mais du ñu xaar ba ñu nekk bi jaa mille cas ñuy daw naa dañuy euh, kii nañu jox la parce que yooyu duñ ko yóbbu fen yow da nga njort ni ñoom dañu laisser les bras nii dañu dañu bàyyeeku. non bon ñoom nee nañu laisser le devoir il reste en alerte on ne reçoit plus aucun message de que des messages négatifs joxatuñ leen oxygène euh, matériel lu turc yi xamuñu fu mu jaar euh, duñu la tontu ñaari message négatif yooyu laa am te message yooyu li ma ko waxee waxuma ko pour man dama ne ko pour aar population aar ñiy faj. bu ñu xaar bi affaire yi tàng ñu koy soog a génne nañ ko génne léegi gars yi gën a vigilant xam ne yor nañu matériel bu ñu waree sol ay kasak ci ay cas ñu sol ko mais doo xaar benn cas douteux ñaari cas douteux ba affaire bi dépassé la nga ne waaye gaaw leen ma kaay leen. yan matériel yaa ngi ci jot yoo xam te ne gisagoo boobu tamit dañu xamul fu mu ko nekk lu muy njëriñ hmm. lu dul prévention luy prévention nag dañ koy teel a génne parce que bu feebar ñëwee te duutu prévention hmm. exemple bi alerte yi nekk fii en Europe surtout la France war nañu servir d'exemple hmm. sunu relation en France c'est c'est très profond mais là c'est viral c'est c'est médical c'est mondial ay relation yoo xam ne c'est intrinsèque bu dix avions di jógee Dakar bu nekk yor trois cents personnes muy trois mille personnes yuy dugg di génn bon <laughs> dañ baay bàyyi en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant docteur ça a été plaisir ñu ànd ak yow ci Equivox TV may fàttali ni yow yaay euh, euh, njiital suma assistance di docteur Babacar ñaa koo xam ne daanaka <laughs> bu ko ñenn ñi gisee dañuy xaw <laughs> ci rawatina ñi ngay yëngatu ci wàllu wér gu te yore ko fi mu nii ci réew mi waaye en tout cas ñu ci ëpp ci sénégalais yi ñu ngi rafetlu sa taxawaay ak sa courage ndax grâce ak contribution yeeg contradiction yi ngi di ci penc mi xaw nañoo am une idée ci Covid beeg euh, ravage yi muy def ci réew ñu lay gërëm di la sant. gërëm ni ñu doon bàyyee xel jox leen di daje beneen yoon incha allah. merci